حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فضل الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والشهور معا مثل العشي بوجد والخدوات كانوا عبادا بالطاعات لربهم wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati kaanuu ya'udduuna tarkal wirdi maa shiba'in minal halaali waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dab si fii nag koo xamante ne bii ko xam Serigne Modou Mamoune Niang wala nga xam dara ci Serigne Abdoul Ahad da nga xam ne kii ñu jàkkaar lool yoon la bu sëriñ Mouhamadul Mamoun Niang wàccee ab liggéey ñu taatan ko suñu micro kooku nag di jëwriñi daara yi bu tarxiya di sëriñ Youssou Diop mu mel ne rek sëriñ Abdoul Ahad boole na ko moom mën nañ wax wax ne sax buñ ko doon laaj kañ mooy sa sëriñu tarbiya danaan sëñ Moudou Mamoun Niang eh, sëñ Youssou sa wayjur dem na sa sëriñ dem na jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ Fallou ñu sant te di ko ziar taalibe yi waaye xa eh, murid saadix boo xam ne léppam daf ko jox sëñ Tuubaa moo fi bàyyi ko kooku nag dañ koy ñee waaw dañu ndax ñaan yi ñaan ci moom di ko ñaanal day wëlbatikuwaat di faj suñu ajo di defar suñuy mbir waaye moom dolli ko dara sax du yomb ndax sëñ Tuubaa euh, kasiran yàlla asi aziman yàlla ci lay jëf jëflanteeg ak murid saalix waaw dax sëñ suñ borom da koo jox te desewul dara moom sëñ Tuubaa lépp la matale euh, di euh, tamit profiter ci occasion bi di ziarewaat sama jëwriñ ja sama kilifa gi sëñ Atou ndax daf ma amoon lu ma yombalal sëñ Abdou moo ko santoon ne ko moolu euh, diwaanu oloomi diin muy lu mel ni yu feq yeeg nga xam ne ay tasu sixaar euh, naxaju euh, jawhar nafis ak lu mel ni Mawahibul Quddus yeneen yi nga xam ne téere tasawuf la ak mu layin ak mu nawir yooyu yëpp Euh, bi mu tolloo ci di ko móol ak téere am ndax yi mel ni jës bu mooy bu muqaddimaat ak miimiya ak euh, manuti rasul muy midaad yi ba mu koy móol euh, liggéey bi mu liggéeyloo ko sëriñ Sàmbay sëñ Sàmbay àndoon ko ak daara ji muy daara is bu tarxee tey waaye daayira étudiant murid la tuddoon nga xam ne xëy si bu set man itam ma bokkoon ci ñi nga xam ne sëñ Aatu daf ñoo féetale woon may tàppe lépp luñ ciy dan def maa ko doon ànd ak koo xam ne moom la ñuy wax sëñ Fallu Euh, di doomu sëñ Modou Mbacke Gallo Ngel moom tamit daan na bokk ci liggéey bi euh, bañ tolloo ci seen sëñ Abdoulaye sant sëñ Modou Mamou Niang mu dem Maroc ngir taxawu ko mool bi boobu daf ko wax ne ko sëñ Atou dina la boole kenn ñaar la ko jëkk booleel sax ndax boobu moo tollook Masalik bi muy sëñ ay si ak sëñ Moutala Mboub waaye ñooñu bañ demee taxul ñu yàgg fa ñëwaat bi ñëwaatee nag sëñ Modou Mamoun war a dem ñu àgg àggale liggéey bi yëpp nag ak téere yooyu euh, sëñ Atou man maay dem waaye man sama yoon woowu moo gën a gudd ndax def naa fa juróom-ñeenti weer ndax 88 lañ fa lañ dem ba bi sëñ Abdou Lahad di di làqu ci saayir boobu fekk nañu fa nga xam ne man mii keroog maa ko yëgal sëñ Modou Mama Niang ndax yàlla dogal na boobu maa doon dongo li mu àndandoo moom di segg café di taxawu lépp lu jëm ci euh, bagage su kër gi ak loo xam ne mooy taxawu ko ndax àndutoon nag keneen koo xam ne mën na ko defal loolu te mu doon mag waaye ba may def loolu ma ko booleeg di xëy ci imprimerie ba bis bu set di xool liggéey bi fu mu toll. bu guddee it may taxaw di xoolaat euh, lu bari ci ni li liggéey bi gars yi def ndax baax na am déet waaye nag ma koy sant ndax diggante boobu war na am juróom-ñetti weer yoo xam ne def na ci man. loo xam ne wax dëgg yàlla nekkul woon ci man waaw ci ndax moom dafa yàgg ci keppaaru waa Kër Sëñ Tuubaa euh, ñu yar ko te ku ne xam ne ne suñ Modou Mamoun boo ko waxee rek moo njabootu sëñ Fallou jenn jëmm lañu du ñu ñaar euh, Touba gépp la bokkal waaye tamit waa Kër Sëñ Touba yëpp la liggéeyal bu am seen garam loolu mooy moom ndax boo nee sëñ Modou Mamoun ak sëñ Souhaïbou bu ndax mos naa ko fay defal warga sax bis bu ne ma yow bu ma delloo dinaa la nangu ci sëñ atu booy laag sëñ soin bu nga di ko nga di ko nga di ko wargaal ndax ndax moom nii la koy bëggee ndax boobu euh, gone yi fii ni ñuy wargaa dañ koy baxal mu <laughs> mu ne ma loolu kenn du ko def <laughs> kon loolu lépp daal di may xamal loo xam ndax koo gone ndakaaru koo xam ne danaan trois heures moo la daan wax lëwal ak yooyu moom mu ñëw jàngal la ni ñuy wargaa ci keppaaru sëñ Tuubaa loolu rek mënu ma ko fay waaw loolu moom mu ne si nañ fas euh, fas lu toll ni xattal karimu jumlata xataaya anhum wa saaxalu mun ataaya kon mu ngoog lii moom amuma payam di ko ziar njabootam gépp nag euh, rakkam yi euh, tàmbalee ko ci sëñ Iba waaye tamit di ko di ko ko di ko di ko ci xaadim mi nga xam ne moom sama lépp waaw di ko jaal jaal itam njabootam gépp waaw doomam sëñ Seex léegi moo ko gisee sëñ Alaaji Fallu mu ne ma mu ne ma yow moom ñoo bokk wayjur waaye yaay magum kër gi ma ne ko mukk ci àdduna maa ngi sa ginnaaw kon kon nii daal la demee ñoo ñoo ngi dellu daara ja waaye jóguñu fii ndax man dafa ma fekkoon ci yoon sax ma nekk soow waaye damaa wëlbatiku fi saa si laa wëlbatiku euh, lu fi mot a def it duñ tàggu kenn waaye dañoo jàpp ne nu def ñoo war jërëjëf <laughs> kullun min al qawmi shaykhun alimun منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وحدها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء الخلوب معا يكفي المريد أنواع الشقاوات